yàlla fekkuma fa dara kii ay heure sëyut te moom nee léegi la waaji mujjee ci kawam boo jëlee d' accord léegi suggérons président Sonko nangu joxe ADN am lañ koy comparé dañuy jël ADN ak bu Adji Sarr comparé ko lan lañ koy comparé pour quel résultat waaw pour quel résultat lan la ñuy d' léegi président Sonko léegi na joxe ADN am lan lañ koy comparé jili boo jëlee suma ADN mais da nga koy comparé benn ADN mooy ñëw nga ci benn fen fekk nga fa ay karaw fekk nga fa ndox buy génn ci góor bu jotee boppam fekk nga fa ay déchirure jàpp nga ni ku jigéen ki gajj na waa ji nga xool ci mi xool ndax ADN waa ji newu fa wala nga jël ci yërëm bu fekkee ñoom ñaar dañ doon xeex mais yooyu yëpp amul ngay laaj ADN waa ji léegi d' accord Sonko na joxe ADN mais pour ñu comparer ko ak lan man loolu rek laa bëgg xam. mais lii problématique mooy dañuy jël ADN pour pour prouver euh, viol. loolu loolu fi première depuis la nuit des temps laa la bi médecine moderne amee ba tey. Hmm. lii c' une première cas bu mel nii. Hmm. c' est une première Séné mooy li Sénégal exception la moom ci lépp daal lii c' une première amut fenn demal def recherche. foo bëgg xool document. via le numérique via le nag doo mës a gis tentative de viol procès viol bu ñuy war ndax viole am na wala amul ñu ne nañ dem defi test ADN day fekk viol suivi de grossesse. Mm-hmm. ñu ne waa d'accord léegi nañ xool kan moo jur xale bi bu dee xale bi seen ADN compo conforme na ñu ne kon waajee ko violé ndax mu jur xale bi. Mm-hmm. waaye amul grossesse. sauf si bi sauf si bu dee am na nit ku mun a ëmb deux ans. woon nañ ko fii. deux ans ana doom xam nga faut pas dañu war a respecter sénégalais yi. respecter mémoire sénégalais yi perte seen bakkan respecter sénégalais yi perte seen alal suñu réew mi dem na bay waaj a effondré wu ci ay feni kese nga baal ma ci kàddu bi ñu continuer ba tey di fooye réew mi mbir yëngal nga ko li xew yëpp xew ci ngeen dem ba ci biit gis ne dara newu fa. am na beneen réaction bu doon xaar ci ñoom budub bii. d'accord mais euh, concernant la justice doguma la est-ce que justice xalaatoo ne jamono ji war na man a am tous les moyens. dans le cadre d'une enquête mën a am tous les documents yi nga xam ne war na mën a prouver ne dara am na wala dara amul ba ñu war a egsi ba fii ci procédure bi séquence bi déclenché woo ba tey fañ toll ba tey li sénégalais yëpp bokk di suivre ndoo mooy amul benn élément waxuma la viol buy bëgg dëggal ni rapport dox na diggante président Sonko ak soxna ji di Adji Sarr même sax ci luñ d'accord waxuma la ak viol lan lañ koy confronté benn mbir rek la partie bi accusé am yaa ma ñëwul na ko yaa ma violé dagg-dagg yi yaa ma ko def ñëwul na ko yaa ma violé ndox bii ñu fekk ci man prélevé nañ ko yow la ñëwul na ko yaa ma violé certificat médical bi nee na seen ak góor léegi-léegi moom yaa ma violé rek la am rek la teg kaw taab yaa ma violé kese mais ba tey euh, ndaw si moom itam dafa taxaw fa mu taxaw ne li muy soutenir li muy wax ne dañ ko ko def. Mhm. ba tey mu ngi taxaw foofu est-ce que foofu aussi. waaw euh, mais parce que dafa am ginnaaw xam nga dañuy wax naan nit ku ñeme dañ laa dee. laa fii dañ ko dee moo tax mu ñeme. mais bu fekkoon nit la koo xam ne comme li ñu wax diggante ñaari privé la. Hmm. yoonu état newu ci mais lii classé nañ ko bu yàgg. femme bi amul sax fit boobu di jiiñ ab kilifa bu toll noonu. d' accord beneen bi mooy entêtement bi nga xam ne parce que wax nga ko sànq signalé nga ko c' est un constat. Mm-hmm. boo demee ci citoyen lambda yi dañ naan dara amu fa. Mm-hmm. mais euh, le débat est très très très entretenu par les politiques. Mm -hmm. euh, finalement sax dafa dañ ko mujj foqati. ci mm-hmm. loxoy yoon wala ci loxoy euh, ñaari privé yi nga xam ne ñoom la concerne. Mm-hmm. teg ko sur la place publique def ko sujet de débat politique. Mm-hmm. Euh, loolu itam peut-être dafa am ay gains yu ñu si xaar wax nga ko sànq Ousmane Sonko celui qui euh, le potentiel remplaçant de du régime actuel. Mm-hmm. Euh, peut-être loolu la ñuy la ñuy ragal aussi. waaw xam nga boo wëree nit ay at. pisse ko ci amam. gis ni ku set la d'habitude fi nga daan mën a tee homme politique yi pisse ko ci lu nekk ca jaar gis ne amoo dara. li ñu li ñu gis donte amul lu solide. mooy lii moo tax ñu jafandu ci. jàpp nañ ne amaana mun nañ dem ba foo xam ne même buñ ko tëjul moom mun na ñàkk ay droit civique am ko mun a permettre mu présenter wu alors que loolu xalaat ni réew mii mun nga fi tëgg élection te président Sonko mii du ci bokk loolu mooy da nga bëgg a taal réew mi président Sonko c'est force c'est réalité politique mm-hmm. bu nekkul premier muy deuxième force politique de ce pays mm-hmm. te mbooloo quatre-vingt-dix pour cent di ay jeunes jeunes yoo xam ne dañu nekk en quête de changement mm-hmm. jeunes yoo xam ne dañu nekk en de vouloir transformer maanaam am ay rêves yu ñu gis ci moom dynamique bi am autour du président Sonko muy jeunes yi ci réew mi ak ñi ci diaspora bi loolu amul lenn lu ko mun a briser lu dul mbirum suñu borom bay bay law sax ci Afrique bay law Afrique feneen ak feneen loolu amul nit mënu ko briser ci ay complot yi wax ni réew mi dañ fi taxal élection présidentielle sans participation président Sonko loolu utopie la. d' accord mais réalité bi nga xam ne moo am Sénégal aussi ak euh, pression bi nga xam ne moo euh, nekk ci kaw justice. Mhm. pression bi nga xam ne politique yi ñoo koy def. Mhm. Euh, yaakaaroon ne ak arme boobu ñu jafandu. pour mhm. peut-être abattre un opposant politique. loolu du am benn conséquence par rapport à la justice. est-ce que l'opposant va se laisser faire. conséquence la la justice risque d'en sortir affaiblie déjà gis nga yi ci xew lépp honoré wut image justice mm-hmm. ñu bëri seen xel ngi teey ci moom ne justice ku am ndey ak ku ma amul ndey la donc li mu ci ay plum ci dossier bi munoon na ñàkk la justice mooy ma première victime dossier bi mooy la justice sénégalaise mm. boo xoolee li ci xew lépp moom moo ci gën a suufrir moom moo ci gën a perte donc jot na man je pense ci procès bi justice sénégalaise am occasion historique fomp ta gàkk-gàkk yooyu ñu buggoon teg ci kawam. nee ni moom melut noonu elle est libre elle est indépendante. malgré affaiblissement bi ak pression bi yaakaar nga na ci génn. waaw man gëm naa ni am nañ chance historique daal. moom ngir génn ci ñoom justice sénégalaise. d' accord euh, beneen euh, question bi nga xam ne moo xaw a lëkkoog euh, mbir moomu. muy mm-hmm. dañ koy wax sax les dégâts collatéraux. Mm-hmm. de ce dossier là muy mm-hmm. mbirum capitaine Touré bi nga xam ne dans le cadre de l' enquête mu ngi doon mënee liggéey bu am solo. ba jotoon na am ay kayitu yu mu fësaloon. ba nguur gi daal di ko ci sanctionné ba raja rajee ko. mbir moomu demoon ba ci cour suprême mu waroon àtte mhm. waaye dafa mel nii dañ ko euh, rejeté mhm. euh, mu bëgg internationaliser dam haute cour de justice bu mhm. CEDEAO euh, boobu itam Cheikh Ousmane Touré li nga xam ne mooy kaawu capitaine toure nan naka lañ ko mën a qualifier est-ce que jàpp nañu ne peut-être mën na dellu ci si ay droit waaw xam nga bon man d'abord damay saluer combat ndax day wane ni moom dafa gëm justice. ñu bëri ne nañ dafa fare ci Sonko. non farewul capitaine Touré ñu xam. Mhm. ñu jaar ci moom mu enquête leen def leen <laughs> mandat de dépôt. xam na ne farut. nit la xama yow nit koo xam ne à son mu am mille cinq cent PV à son actif traité dossier bu nekk. très jeune en plus kooku du cuune. Mhm. maanaam capitaine Touré tey munoo ko génne tey ci crème ñi gendarmerie fo euh, formé. maanaam ci élite bi la bokk. ci domaine yi mu doon yëngu. yow kooku nga sacrifier ko ci mbir mu mel nii. tooñ nga ko jàng na sonn na servir na dem na ay mission ay Darfour ak fu nekk servir na réewam fi mu mujjee mooy dàq nañ ko. tey bu fekkoon ni moom tey taxawaay bi askanu Sénégal am ci moom tey doon na metti tey pour mu joindre leader bu pour dundal mhm. njabootam mais heureusement askan bi sataanu ko ndax askan bi a su comprendre que kii c'est un sentinelle de la vérité ba jéem nañ ko jàppale wan ko na ko kat kuy xeexal dëgg waroo torox ci réew mi mhm. contrairement ak ñi ñenn ñi jàpp man li ma gëm mooy ci réew mi du fi am moom dëgg mukk moom par rapport digganteem ak état xëy tam cour de justice mu am fa ay victoire mais victoire symbolique lay nekk mais du ko jëriñ dara ci réew mi ndax opposant yàgg na am hmm. victoire ci cour de justice mais fii duñ ko appliqué donc voilà rabat d'arrêt bi donc euh, da ngay gis ni parrainage bi également voilà parrainage da ngay gis ni cour de justice moom Sénégal lañ koy déglu ci bu ko arrangé donc victoire symbolique lay nekk rek xëy na moom it loolu lay ut pour wane ni état bi da ko tooñ mais wax dëgg-dëgg yàlla moom man gëw ma et puis moom sax wax na ko hmm. cherché wul à regagner la gendarmerie mais dafa bëgg xam naa jot dëgg ni dëggantaan dañ ko tooñ daal. d'accord alors dañu wax ci ci beneen actualité euh, bi nga xam ne actuellement c'est en cours euh, muy marathon budgétaire bi nga xam ne mooy daw actuellement à l'Assemblée nationale ngeen mën ko suivre pour votre information sur Sénégal 7. Mm-hmm. tous les jours en direct euh, marathon bi yaa ngi koy bàyyi xel. bu baax commentaire bi nga ci mën a def. waaw. am lu ma neex ak lu ma naqari li ma ci neex mooy gis naa changement bu bëri biir hmm. assemblée. Hmm. gis naa ni niveau débat bi député de l'opposition ñu ngi wane ni kat législature yi précédé ak bii ute na. Hmm. ñi ngi bëgg dëggal kat ñi ñi ñi leen joxoon nombre de député bi ñu am maanaam ñu bañ ko mu nekk regret ñu gis ne daal la woon ak am benn la ba tey. ndax boo xoolee euh, marathon bi maam tàng na trop ci ministre yi gis naa ni député de l'opposition ñi ngi soulever débat bi ñi ngi indi débat technique ñi ngi poser problème yëpp sur la table mais malheureusement député majorité bi suivre wala sax du ma wax majorité député du camp du pouvoir de la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax man bi ma commencé suivre affaire ba benn mot laa gis député Benno yi am mooy boo poser question ministre yi ñu ruube buñ ruubewul na la dàmpalu sur beauté massage ëmbaleur kàddu yi rek laay dégg ci ñoom très sincèrement mhm. et c' est très très décevant caméra yi braqué say doom di la setaan say sëriñ yi nga gëm di la setaan ñi ruus di la setaan say waajur say say say wóllëre waajur nga am yenn comportement yi ci biir assemblée ay député perturbateur aussi waaw mooy mooy li ma la wax ruube yuuxu mhm. saaga dàmplu sur beauté ay kilifa di taxaw ci perchoir bi di yëkkati yenn kàddu yi loolu honoré wu leen. naa ne amamu àdduna jaru ko. Euh, gis nañu euh, critiques yi ñu doon def ci treizième législature. Mhm. Euh, mu mel ni bëri na député yi nga xam ne ñoo féete ci mouvance Benno Bokk Yaakaar. mel ni mhm. tiré wu ñu les leçons de la treizième ah, législature. xam nga Benno moom fi mu toll nii moom. nu ñu koy waxeete gumba tëxlu lañ. Hmm.